di nuyu képp ku fi teew ah, di jotal waxtaan bi nga xam ne nii moom lañ fi moo ñu fi dajale ñun ñëpp ci jafe-jafe yi nga xam ne nii am na fi di wax ne dund nañu nag lu metti loo xam ne nii ñun jàppoon nañu ne amul ci sunu réew mosuñu xalaat it ne am na ci Sénégal ah, ñu bëri jàpp nañ leen ci jàppin boo xam ne teguñu ko ci yoon parce que ñu ngi doon doxi seen soxla surtout ñi ci ëpp ñiñ si jàpp euh, li leen taxoon a jóg ñoom xam nañu ko waaye jàppin bi dañu siy ñëw parce que lenn lu bëri dañuy dañoo marqué ci jàppin bi ñu lay jàpp dañ lay jàpp ba noppi di la toroxal seen biir di la dóor euh, ñu ci bëri am nañ ci ay gaañu gaañu yu metti surtout man personnellement ñaw nañ ma ñaw nañ samay tuñ li ci ëpp ñoom bu ñu la jàppee man personnellement li ñu lay wax mooy yow ban ban saaru xeet nga joolaa nga walla séeréer nga walla leneen nga jàpp nañu ne même ñaawteef bu ñu taxoon a sax waruñ la laaj yow ndax yow joolaa nga walla séeréel nga jàpp nañu nag kër Ousmane Sonko yóbbuñu bi ñu yóbbee seen biiri oto ñoom dóor nañ ñi seen biir oto ku nekk expliqué nga la la fa taxoon a ñëw waaye ñoom mënuñu gëm liñ leen di dóor nañu seen biir oto yóbbuñu polisu jëppal bi ñu demee polisu jëppal ñi bo ñi bokkoon si ñuy yóbbu hôpital boo boo leen tàggoo nga danga nga bëgg tuur ndox sax du ñu la ko may da ngay obligé nga ut sa benn mbuus nga tuur si ndox téye ko boo yeggee nga xam ni nga koy sànnee. bi ñu ñëwee polisu jëppal ñoom tamit gis nañ nañ ñi fa doon toroxalee ñu dem police central bi ñu demee ñi simmi suñuy yére te duloo ñu ci ay karo teg si ay quarante cinq personnes ñi dugal ñi ci benn néeg boo xam ne ni matul cinq cent euh, matul vingt jàpp naa ne loolu bu ñu waxee ak euh, corona bi fu mu toll ni waroon nañuy respecter mesures barrières yi euh, beneen bi si topp du kenn koo xam ne ni ñoom yëkkati na ay masque jox ñu ñun ñoo demandé masque pour ñu indi ñu masque ñi takk ko protéger suñu bopp te yaakaar naa ñoom loolu ñoom la waroon ngir ñoom ñi jox ñu ay masque feebar bi fi mu toll ñoom waroon nañuy lijjanti ay masque ñu jox ñu ko defuñu loolu ah bokk na si ñi nga xam ne nii ñu ñu téye mooy ki ci gën a siiw ñi koy wax Mouhamed donte que ñu bëri bëri bëri gaañu nañ si waaye Mouhamed moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne nii dañ dañ ko gaañ ci ay awraam euh, ñoom dañ koy isolé sax ñun suñu avocat yi bu ñu ñëwee dañu dañ koy isolé bëgguñu moom mu ñëw ci avocat bi après ñun si lañ ko wax ne ko am na suñu benn mbokk boo xam ne nii dañ koy isole dañuy tëdd ba ay trois heures ñu woo ko di ko di ko di ko dóor di ko teg lu metti man jàpp naa ne loolu nekkuñu si réew moo xam ne nii dañu lay toroxal ñun amuñu yéene gaañ benn policier parce que ku ci ku ci nekk man am naa sama grand frère policier la am naa sama tonton boo xam ne policier la man jàpp naa ne du ma sànni xeer policier ba di ko gaañ kon jàpp naa ne lépp lu ñuy mënul def policier yi ñoom nañ ñu protéger loolu lañ soxla si ñoom. pas ñoom ñi ñuy dóor di ñu torturer jàpp naa ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi senegaal ñun ñoo ko moom senegaal ñun ñoo ko war a mën a defar kon li ci ëpp nañu xam ne seeni doom lañuy ñuy jàkkaarloo seeni rakk la ñuy jàkkaarloo lu ci mënul am nañu respecté ku nekk ñi respecté sa bopp yaakaar naa loolu laax amoon ci li ma ciy wax torture moom lu lu la fu la waaye mun a wax fii la commencé ak fii la yem rek méttee na ko parce que fan yi yëpp depuis ñu bàyyi ñi ba léegi man personnellement man dama feebar te yaakaar naa vingt personnes ñu ci bëri koo ci woo téléphone démb danaan la non dama feebar am na ñu ci nekk hôpital nañu jàpp ne réew mi nañu bàyyi di jël doomu aadama di ko dóor amul fenn foo xamante ne nii digle nañ fa pour ñuy dóor nit wala ñu koy toroxal parce que doomu aadama. yàlla moo ko njëkk a yëkkati kon en tant que doomu aadama ñoom waruñu jël nit di ko dóor yenn dóor yi metti yi ña ñi nga xam ne nit ñi nag ñoom lañ téye foofu surtout ñu bëri dañoo feebar ñu bëri dañoo feebar parce que Mouhamed ñun dañ ñun suñu biir dañ dañ doon organiser wu ngir may ko sax moom mu am espace boo xam ne ni moom tëdd na ko te surtout buy wax ak yow ci problème mu yaramam bi la lay wax sama wet bi day métti sama kanam day métti fu mu doxee buy jóg day jàpp ci kanamam yi parce que nee na ñaari poojam yi bu laalantee ay awraam day metti kon ça veut dire que kooku mu ngi dund lu metti foofu noonu te ba léegi nii jàpp naa ne ñu ngi ko téye nañu bàyyi doomu jàmbur yi yàq tax taxuñu jóg nit du liggéey alalam ba pare nga gis ay otoom nga koy taal kooku jàpp naa ne kon boobu nekkoo patriote dëgg dëgg dëgg dëgg yàq du ñu tax a jug du ñu salteel waaye lu ci mënul am nañu respecté Sénégal yi